ñam numéro 2 mi ngi noonu da càppaa këli borom bu jeexee jeex na borom le premier janvier naka mu lépp jàmm naka yëngu tey maa la tey maa tey maa waa maa ngi ko waar waaw maa la noonu na baax incha allah booy non non dañ fi am émission macha allah ngi noonu wàcc na ñaareer bu dugg ñaareer bu dugg ñaareer bul areer waaye numéro oto bi laa bañ a jël nag yow it Assane wàcc na Assane wàcc na cey le premier janvier Boy Niang numéro 2 ak Reug Reug ay Omar Kane doomu caaro yi ak lu mu lëndëm lëndëm bukki for bay forom cuuro cuuro ko cuuro laa xale baa ngi de Sa Thiès le vainqueur xale baa ngi noonu de Mbiis Zenker de Akon Zenker de Saka Diop Zenker de Double S2 Zenker de Garga yëpp xale bi macha allah daan na leen dafa kànjee ngi noonu dafa kànjee ngi noonu ay naka jaam naka yëngu yi benn tali ah, fii la fii lëndëm lëndëm ci loo ne lëndëm lëndëm maara Pikine lépp jàmm naka yëngu yi maara àndal ñoom yee Assane Assane Tom aja maara ñëw bari ñëwal. bu fi yàggee kay créé fi Mara we. Mara ñaa ngi numéro deux Mara we. bàyyi la am bu baax yow. tey bës la seet si woon bës bës lay seet Assane waaw fii mooy site bu bës bi fii mooy Lutte TV tegool lépp jàmm Tafa Kanji Papi Diop champion mooy ñu numéro 2. taxal woo ko bës mu présenté ko fii. maa la ah, eh bës. Ah, eh wol ma bës. ça va. lépp jàmm. xaaral mu ñëw. xaaral bës mu dugal la. bës kañ la doon stade. ah non bës léegi mooy borom réew mi eh bës. Sam. war nga bës. jiitu yow da ngay war bës mu dugal kii ko waaw loolu Sam. bés de xam naa ca biro ba la nekk toog directeur bi la doon waxal ah léegi Sarr la de mooy borom dëkk bi de. Ah, léegi coow li bëri yow ko àndal. ah man Malick Ngom. mbër yow kuñ fi teg baax na wala ko mbër acteur la ngeen bëre laa xam. waaw ngeen bu bëre. kuñ fi teg nga bëre. kuñ fi teg rek yokk na làmb la yàlla waaw waaw kuñ fi teg daal na xam li ko fi andi. waaw yokk làmb suba. waaw eh, maa ngi lay woowee bu baax. non non non eh, mag bi laa soxla. ah. aywa ñu ngi lay. waaye MMA am nañu problème. présenté ko àndal ak moom. waaw ah, waaw saa kii nag. waaw jàng. waaw ah. c'est que ñun làmb am nañu cuu am nañu caa am nañu cëraloo mais kii nag mooy naanaa mu wëli waaw ndax dafa jàng bu jàng la bibliothèque waaw bibliothèque kii xam na ni académicien naanaan ak jàng moo tax nga ñëw nax ñu voilà benn promoteur def dara il faut nga ni ah ah moo la réew mi xorom baa ngi nii waaw ah. mooy lépp Sédar Senghor. Mm-hmm. ah kii nag moom xam na ko bu baax. Mm-hmm. ndax kii bu muy jàng école. da doon gis ay kaye lépp Sédar Senghor. ayca bisimilah. kii nag. waaw moo nekk gouverneur. ci mm-hmm. Louga. sàmm ji. voilà ba pare wëlbatiku nekk premier ministre. ba pare nekk président de la république. mais kii est-ce que du sa président. nee nañ nee nañ nee nañ lépp Sédar Senghor. waaw moo lay jox da koo yëkkal. moo leen ko yëkkal moo leen yëkkal am na kii nag kii nag moom. waaw kii moom ko bëggoon ñoo ko far. ñoo moom population bi. ñoo ko bëggoon dafa moom Sénégalais dañoo amoon cofeel ci moom. dañoo amoon cofeel ci moom mais duñu ñaan suñu borom. du dal borom bu baax. macha allah macha allah kii nag moom kii moom nag gisante nga ak moom. waaw hmm. dem nga ba palais de la république. waaw loolu la léegi kii nag kii nag moom. maanaam bu ñu bu ñu waxee dëgg rek. bu ñu waxee hmm. ñun nëbbu ñu def dara. liggéey na maanaam moom lañ xamee président bu ñu recevoir ñu toog ak moom waxtaan. Hmm. dëgg dëgg mais loolu moo tax loolu. premier président boo toog ba daan cofeel boobu du dañ quoi. ak mm. arène nationale. waaw arène nationale aussi moo ko indi donc mm. cofeel boobu mun na dañ quoi. Mm. nag dafa dafa nii jox nag moom. mais président bu jantal la président xale. waaw ah, président xale non ñëwal ñi ñëwal ñi. xale mbër xale président xale. président xale ngi nii. Ah. président bu jantal la ngi nii. Ah. mais aussi sama mbokk séeréer mi ngi nii. ndeysaan yaa ngi dégg. mais lu njëkk mooy moom xale yaa ko fa. ndeysaan xale yaa ko fa. waaw booy moom ak euh, son premier ministre. Ousmane Sonko Ousmane Sonko jeunesse bi. waaw ñoo leen fa. donc ñoom aussi. am na yaakaar bu bëri bi ñu am ci ñoom di ko xaar ci ñoom yàlla ko suñu boobu moo tax parce que président bu ñu far rek Sénégalais yi dañoo yaakaar mais ñoom fi mu yan bi dafa diis parce benn situation boo xamante ni gars yi xiif nañ mm-hmm. xam nga gaynde bu xiifee lu muy xaar mooy nga sànni ko mu lekk mm-hmm. mais du xaar ngay dem di ko lijjanti loolu du ko déglu mais mais gisoo ni gisoo ni da nga am air nii quoi ah, air man damay wax ne président Diomaye inspiration la ci bépp jeune macha allah ba pare ñoom dafa am loo xam dama ko ci jàng mooy yàlla suñu borom dafa wane boppam ci seen fan ndax dafa dafa yëngu nekk di wax man la moom ki nga xamante ni moo ko teg sax jàpp ne moom la yàlla ne déedéet man maay ma tànn moom boo ko fekkee ne mi ngi ind ku day ñëw maa koy tànn def ci président moo tax loolu jàngal la lu pare inspiration la pour bépp jeune mu xam ne da nga war ci nekk li nga war a nekk dañ ci war a nekk mais ki nga xamante ni moo lay may moo lay fal mooy suñu borom mu ñu fal ko mu ne il sera le président de toutes les sénégalaises et de tous les sénégalais mm-hmm. loolu dafa tënk lu bari président Ablaye Wade recevoir monde lamb mm-hmm. président Macky recevoir monde lamb est-ce que moom lan la ñuy xaar ci moom est-ce que recevoir monde lamb kese la wala lan la ñuy xaar ci moom par rapport ak yéen waa lamb boo bëggee lépp loo xamante ni président yi passé mm. defal nañ ko laal ci moom la ñuy xaaree lu ëpp loolu xam lu tax mhm. doomu séeréer la cosaanam làmb la doomu séeréer boo xamante ni nekkul ci ngel yi nekkul ci làmb ji bëriwul amul ci doomu séeréer donc moom lépp lu nit defar làmb kee tamit doomu joolaa la joolaa ak séeréer seen cosaan làmb la donc lépp luñ am ci ñuy paase ci ñoom lañ gën a yaakaar yaa yàlla na ko suñu borom yombal aussi mu yomb suñu borom may la ñu liggéey doole mais jantal président la jàmm ci moom. bu baax ci yéenam booy ñaar laal cachet wu un milliard. ah oui ah, c'est possible ñu bokk ñu ñëpp. parce que moom bu yokku la da nga baax mais yow yaa ngi mais mais sañse yi sañse yi tamit nag nañ ciy wax waaye. Ah, nañuy wax ci sañse yi waaye. Ah, yaa <laughs> ngi nañuy paas waaye nañuy paas waaye. macha allah ah. bismillah dal leen jàmm. na visite na visite studio yi. muy père suñu papa Bégaay ah macha allah suñu père Bégaay ñu koy ñaanal suñu am lamb ku yokkul da nga wàññi. waaw yow da ngaa yokkul keneen keneen waaw 2006 Bantamba moom moo waxoon attention sa gosse. attention sa gosse il est dangereux. je vous l'avais dit. waaw donc gars yaa ngi nii. trophée YouTube ba nekk na leen un million bi ak njëriñ Pape. un million de abonné. mooy yaa ngi nii. sëñ bi sa dugub. Lamine Diop tamit. Bukan. Kan